waaye asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ñu ngi leen ay nuyu kenn ku nekk turam ak santam di leen ñaanal yàlla bu baax di leen sakku ñaan eh, di leen yëgal ne ñu ngi jëm ci programme bu mag mooy le 19 juin 2021 loolu nag 19 juin 1941 moo ko jur li nga xam ne def nañ ko suñu sëriñ bu mag boobu góor yàlla bu mag boobu waliyu kaamil boobu muy Cheikh na Ahmad Ahmadou Haydara jaamu yàlla bu mot boobu eh, ci la génnee këram kon nag comme bés boobu la génnee këram fas nañ yéene bés boobu ñu màggal ko bes boobu ñu waxtaan ñu defal ko ay dog bés boobu ñu defal ko ay zikr yi bëri bari bari bëri bëri bëri comme ay laa ilaha illallah jagleel ko hidaaya moom ak juriyam ak muqadamam yi yëpp alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi sant yàlla daaw yàlla dimbali nañ def nañ dog yi bëri bari bari bëri daaw jot nañ def de vingt et quelques millions deux cent et mille salaatul fatiha ak salaatu ala nabi yu bari ak hasbunallah yu bari ak basmala yu bari istixfar lu bari e suratul ixlaas yooyu yëpp daaw defal nañ ko ci yu bari bari bari bari bëri ñu ngi ñax nag taalibe yi lu ñu jotoon a def daaw yal nañu yàlla dimbale ñu def lu ko ëpp ren parce que góor yàlla bi de képp ku ko defal lépp loo ko defal rek war nga koo xeeb parce que bu ñu xamee laa ilaha illallah comme ni ñu ko xamee ni yàlla ak moom kon comme yàlla def koo jagleel laa ilaha illallah jox ko moom tam mu jox ñu ko kon ñu gën a góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax lépp lu ñu ko defal rek ñu xeeb ko te bëgg nañ kenn ku nekk des nga dégloo audio bi nga commencé ci bés boobu lépp loo mun ci zikir rek nga zikir dajale xaar bés boobu suñ demee ba le 18 juin jot nga commencé wàcce boobu ci numéro yi ñu lay jox ku ko programme bi nag nga suivre ko ci page Facebook ASTV 171 dinañ wone foofu ay jaar-jaaru Cheikh na danañ ci waxtaan évité ci ay borom xam-xam euh, ñu waxtaan ci diggante Cheikh na ak nasaraan yi waxtaan ci may yi ngan yi nga xam ne yàlla defal na ko euh, exposition virtuelle aussi dañ koy def ci mbiru Cheikh na ci bés boobu euh, lii lañ waxoon pour ñu jottali ko mbokk taalibe yi mbokku jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu